enquête 221 di nuyu seen abonné yi yëpp man la Idrissa Fofana ñu may woowee foofu waa ci Facebook bi. foofu gën la xam nga nekk administrateur ci eh, groupe Facebook boobu ñuy wax Galsen Fun. d'accord voilà bon ñu gis naa am na benn drame bu am par rapport ak l'affaire Ousmane Mbaye. Mhm. ñu bàyyi un peu nga revenir ci fay yi. bon fay euh, au début tàmmalewul Galsen Fun en fait bon je pense que le Euh, benn post xaritam la ñëw commenté wax li mu fay wax yëpp wax fa lu doy waar sax te comme léegi Facebook dafa ne loo xam te ne mën nga jàpp ni gars yi xamuñ la gars yi ñu bàyyi xel boo lu baax kenn la mais boo wax lu bon rek gars yi vont capter faire des screens àdduna lu bon moo gaaw siw léegi nag après suñu page comme gars yi lu xew day ñëw di ci wax noonu la gars yi di ci wax noon noonu noonu noonu noonu ba affaire yi fu mu yegg et malheureusement affaire yi jur coûté ko cher moom Ousmane Meng. bon bon comme li mu la wax rek affaire yi tàmbalewul si suñu page bi en fait tàmbalewul foofu doo tàmbalee feneen xam nga tey groupe Facebook yi li koy neexal mooy actualité lu xew rek ñëpp wax ci lu xew site yi wax ci télé yi wax ci pour Facebook aussi wax ci et gars yi bu ñu ñëwee bëgg wax li xew ñun mënuñ leen tere exprimer wu mais affaire yi si siw na balaa ma yëg suñu group mais groupe bi nag peut-être moo gën a yëpp fu mu fu mu euh, moo jox jël ampleur mais le gars aussi dafa juum dafa juum donc Sénégal fii gars yi duñ la baal yenn yi boo juumee rek gars yi xam nga dañuy dañuy dal sa kaw. genre li tax ma laaj la nag vous vous sentez pas un peu responsable. Mhm. mooy par exemple tey yéen ñu mel ni groupe xam nga yéen Galsen Fun. Mhm. yéen ñu commencé woon télé Dakar après ñu ñu disloqué ko indi Galsen Fun. Mhm. genre vous entamez des sujets yoo xamante ne tey nit ñi ils ils vivent sur tout. pourtant Galsen Fun nag. administrateurs yi sont des gens intelligents yoo xam ne dañuy segg bu baax affaire war a jàll affaire jàll comme je te dis ñun affaire bu amee dañ ne ñun dañ ci neutre parce que xamuñu li xew xamuñu euh, am xamuñu en réalité sujet bi comment ça se au fond dañ ci neutre ku ñoo publier di wax lii lii ñu supprimer ku ñoo publier di wax lii lii lii wóoruñu dañuy supprimer déjà waxu waxu diine du fa jàll waxu tarixa souvent dañ koy éviter parfois nag nit la mën nañ juum mu rëcc mais on fait tout pour débat sensible ñu koy moytu mais kaaw euh, Ousmane Meng bi bon Facebook la xewee en dehors de Galsen Fun donc comme actualité la woon site yi reprendre nañ ko ñëpp reprendre ñëpp reprendre ko gars yi bu ñu ñëwee publier aussi ñu bàyyi mu jàll gars yi wax seen xalaat. mais xam nga xam nga tey bi muy def ay excuses am. Mm. Galsen Fun la ko defee. non je pense que là si miiram la ko defee du Galsen Fun muy jéegul aussi miiram la les gars yi ñëw ko screen indi ko Galsen Fun parce que Galsen Fun tey yàlla dafa def mooy page Facebook bi gën a actif Sénégal fii donc lu xew rek gars yi dañuy ñëw bëgg ko waxee foofu. donc quand il s'est excusé je pense il l'a fait sur sur sur son mur gars yi capturé ko doo ko gaal téléphone ne woon ne ah moo juumoon jéggalu na te comme ñu ñoo jàlle woon euh, bu muy tooñ aussi bu bu excusé dañ koy jàll tamit gars yi gis ko tout ça. mais est-ce que jotul euh, WhatsApp boo xam ne H24 nous sommes en compte parce que xam nañ xam nañ euh, danger Facebook xam nañ lu mel noonu. mën na taal Facebook ci lu yomb donc ñun ay borom xel lañ gars yi ay mbokk jëmm lañ ay ñax na ay borom njaboot lañ donc on est intelligent xam nañu baax lu ñuy def chaque fois on se concerte chaque fois on se concerte ne ah gars yi lii ah lii warul jàll lii warul jàll on en parle entre nous ñu nangu ne fii di di di def loo xam ne mais souvent erreur mën na am dara jàll ñu gis ko signal on supprime mais gars yi ñu ngi bàyyi xel lu baax tout ce qu'on parce que xam nañ ne groupe bi mu toll am nit ñi toll noonu am nooy doxalee rek xam nga dana tar réew mën nañu actualité Sénégal. Mhm. foofu lay jógee. foofu lay jógee. parce que lépp. Mhm. foofu lañ koy waxtaanee da gis benn affaire boo xam ne dañuy commencé si ay rigolade. bu mhm. commencé foofu ba mujjee nekk thème si société bi. dugg ba si biir kër yi am ñu mu laal. waaw xam nga Galsen Fun daanaka euh, comme mu la wax sànq Sénégal am miniature la parce que boo xoolee jeune dañuy bëgg fu ñu exprimer en communauté tey boo demee si site internet yi.

parfois tu fais une gars def publication wax ne amul danger dama ci bi gis ne Mamour ñu ngi ndax tarixa wala affaire de religion on supprime baki demoon Ndiaye bu ñu gisee affaire euh, mooy ñi waxoon du dañuy tere xaw ma école ban sol voile xaw ma gars bu ñu bëggee ñëw si page bi dañoo bañ waxuñ ci dawa ñun nañ admi ñu admi ñoo xam ne ñoo gën a siiw si si groupe bi nekk ay porteur de voix buñ ci wax man waxuma ci keneen keneen waxu ci gars yi bu ñu ñëwee ñu ne non bi doo sensible duñ ci wax donc je mel noonu débat yu sensible dañ koy éviter du ñàkk nag parfois benn ñaar jàll mais cas Ousmane Meng bi kon une fois tàmbalewul kaar seen fën mu ngi tàmbale ki ki porte plainte kooku moo publier mu ñëw commenté si muram kooku gars yi capturé ko. mais ci mur moo moom moo publier ci muram moom gel boobu moo ci muram Ousmane Meng commenté ci muram ndax ami Facebook la gel bi capturé ko partagé ko comme comme c'est grave. gars yi xam nga lu Facebook lu bon dafa dafa gaaw a siiw gars yi partage partage bi mu doon site yëpp mu wërtale yëpp noonu la ñu wër Galsen mm-hmm. yi dafay waaw loolu parce que su ko jëfee man par exemple dañ ne dañ dañ teg suñuy suñuy euh, suñuy suñuy loi Galsen Prod mu ngi mel ni euh, comme société rek li yàlla li yàlla la nangu li yàlla la bañ mais nit. xam nga Sénégal lu mel rek day ñëw def lii ñun lu ñu mën na ba ku ñëw wax ay saaga wala ñu bloqué la. est-ce que de ëpp na 200000 membres est-ce que mais c'est ça problème moo tax bu ñu ñëwee gis koo xam ne def na dañ dañ jox membre responsabilité ne leen boo gisee loolu naqare signal leen ko ñun amuñu amuñu bët di xool lépp amuñu gis lépp ni ku ñëw dañuy gis ñoo xam dañuy ñëw pour pour dañuy ñëw pour def affaire charlatan feebaru formation ñu bëri gars yi ñu ñu ñu écarté leen parce que xajuñu foofu bokkuñu foofu noonu léegi ñu mun ñu contrôler lépp muy mel ni même fii population bi malgré am na malgré malgré état teg na ay loi teg na ay ay directives mais teroo gars yaa ngi dëng muy jéem a régler mais état war a bokk euh, on n'arrive pas à cerner tout tout tout tous les déviants en fait donc li xew Sénégal rek moo moo xew Galsen Fane en miniature noonu la demee quoi. léegi léegi kaw Ousmane Mbengue bi yéen ban lecture ngeen ci am. lecture bi mooy euh, réseaux sociaux dafa doy waar tey. te àdduna en général yàq moo gën a gaaw defar donc bu ñu nee ba yenn cooy am surtout débat bu sensible noonu li gën mooy nga maandu ci bañ cee wax wala nga wax lu baax li ngay wax parce que moom li mu wax c'est grave en fait moom mbiru est foo la mais man bon moom la concerné mais c'est grave en fait donc kenn du fooyee yenn yi donc moom juum na nangu na juum na mais malheureusement c'est trop tard gars yi teg nañ ko loxo yoon def liggéeyam mais li may yi mooy réseaux yi. man maa dàq tooñ maa dàq mbalak mais voilà ci laa ci laa ci laa dëkk. voilà li mu gis ngeen ngeen koy café. Mhm. loolu mooy ko sañ-sañ ba mu jël tey propos yi mu wax ak mhm. ñun lu ñuy kafe ak moom lu mu fooyoo ça fait deux ñun suñu café ay mbalak la ay blague la mais sujet bu sensible noonu man non man ba tey waxuma ci chose même pas en parler te moom sa góobamu ni membre la Galsen Fun je pense pas je pense pas membre la. parce que mosuma ko dégg turam foofu noonu wala bu dee Mamour la xaw ma ko woon parce que mën ñu xam Mame mais moom li mu wax moom la concerné xëy na daa am jaar daar ak agent féminine moom parce que boo xoolee boo xoolee dafa mel ne xam nga loolu personnel la loolu peut-être jikkoom wala boog éducation la ñun loolu mën loolu concerné mais li ñu concerné mooy suñu groupe bi ku ñëw def loo xam ne dafa sul noonu dañ lay écarté génne si groupe bi on fait tout pour xam nga ràññee mais yombul nag parce que on a mais saa yu ñëwee dañuy na ci groupe whatsapp bi na ah lii ah lii ah lii ah ah lii ñu jënd loo xam ne bokku ci ñu téye lu baax li donte lépp parfait wu. voilà léegi tey boo xoolee phénomène bi. Hmm. seen groupe moom moo ko divulgué ba ñu teg ko loxo. Hmm. amoon leen benn soutien bu ngeen ko war a mën a apporter. ñun sax boo xoolee euh, ci groupe bi am na ñoo xam ne dañ bëggoon genre yow yoon def liggéey ci dossier bi mel nii surment jigéen ñi parce que. te te ñu waxoon ñoo ko bokk quoi ñëpp ay doomu aadama ñëpp ay Sénégal lañ donc lii xew nii ñëpp la metti que ce soit góor muy mu ñëwee te téye na kàddu yi man dama cee maandu parce que sam ko am ñoo xam ne dañoo ñoo yéene ko lii li ko di ko dal mu que am ñoo xam ne moom nu li mu xalaatee ñu bëri la ñu xalaatee mais duñ ko wax mais moom il a osé taxaw si place publique wax loo xam ne c'est grave donc il naka assumer quoi il naka assumer xam nga ñu koy ñaanal yoon def liggéeyam ñu xam nga xool nu ñu koy doxalee mais ñun en tant que Galsen Fun affaire bi encore une fois tàmmalewul Galsen Fun ni mu ni mu teeroo site internet ni mu teeroo site yi mu tudd tur noonu la teeroo aussi suñu page Sénégalais ñoo bëgg ci waxtaan yi ñu bàyyil ñu waxtaan ku ne jox sa xalaat ku ne partagé Galsen Fun tey li ñuy def ci lu baax yaakaar naa moo moo ëpp que ay euh, cas Ousmane wala ay détails xam ne c'est négatif te dañuy ñëw Galsen Fun man par exemple chaque jour ji nit ñi misaal foofu diir dafa réer publier ma ma publier nit ñi partagé mu ëllëg mu feeñ côté bi ñëw ne ñu ñu waajal ay ay ay affaire pour joxe pour jox membres yi peut-être ñi ñi xam ne am ñu am ñu seen seen loxo jot seen ginnaaw ay ay denrées pour Korité bi donc am nañu ay projets yoo xam ne c'est positif donc ay cas cas Ousmane Mbengue ay dara yoo xam ne la bon mën na ne ci ci la bokk parce que nit matul waaw mais ñun en tant que seen far moom ñu def tout pour xam pour jox suñu participation ndax gars yi comme si gars yi ay ay gars yi ñu fa nekk at ñu fa nekk dañoo jàng sont diplômés ñi ay bureaucrate lañ xam nga duñu noonu du foo yéene man boobu sañu maa foo yéene en fait sama blague yëpp si nit la yam naa ñu laal tooñ yow nii nii après bu mu leen neexu ma jégalu mais du ma nekk fi di fooyee ay débats yu sensible encore une fois que ce soit religion tarixa sa gëm-gëm doo foor ku neex nga gëm nga gëm dund ko si yow sa diine sa tarixa si yow la mais fii bu ñu ñëwee fii ñëpp dañ la ñu foo kafree dans le respect bay dugg si sujet sensible en fait waaw. prévention ngeen di jël parce que kaw Ousmane Mbengue bi exemple la ci li nga xamante pour que ngeen prévenir nit ñi def hmm. nag ci réseaux sociaux yi. waaw kaw euh, Ousmane Mbengue je pense que dina yee ñu bëri je pense que du kaw bu njëkk parce que yàggul dara euh, amoon na coow bu amoon fii boobu c'était pas Galsen Fun boobu Sénégal bi gis nañ coow mooy coow match de football Ezo Mbour bi hmm. amoon na ay moor ay ñoo def yenn commentaires yi. gaa yi jàpp leen tëj leen comme bi lii rek donc ñëkkewul ci ñun lii Facebook moo doy waar comme loo wax xamal loo koy wax parce que dafa doy waar boo lu ñaaw surtout mu am mu am moor surtout mu am moo doom ci tàng-tàng bi gars yi dañuy utu ay victime nga ñëw dugal sa dañ lay jàpp loolu noonu Galsen Fane moom si dara yàgg naa am dëkk ku ñëw bu doon suñu page rek ñëwee ko wax loolu dañu koy supprimer commentaire bloqué ko moom mais malheureusement ñëwul suñu page bi fee la jógee ñu ñu terti fii far na mu law noonu waa di la remercier bu baax remercier kontaan naa trop